Euh, boobu ba léegi programme bi dafa amoon ñaari aspect dafa am aspect scientifique ak culturel bi muy semaine bi nga xam ni moo waroon a tàmbali euh, le 22 keroog dimanche bi sëñ bi ñëwee gis ngeen ne sëñ bi ñëw na teertu nañ ko euh, mu saafoonteeg taalibe yi delluwaat ci këram gi ci Colobane di noppalu ak di saafoonteeg gan ñi ak di leen ñaanal programme yi ñuy def fii nag tàmbali na xam nga ne ñi ngi tàmbali démb bërki démb ci altine ji Euh, lañ tàmbali woon muy bis boo xam ne ñu ngi ko duppee woon Cheikh Salih euh, démb di bis boo xam ne talaata ji suñ maam jaaratullaahi lañ ko tuddee woon gis ngeen ñëpp ñëw nañ sëriñ a ñëw na euh, mbooleem waa kër sëriñ Muntaxa yëpp ak soxna baali ñëpp ñëw nañ alaaji Mbàkke yu fay ñëw fi tetangal leen waa comité scientifique bi waa Rawdu Rayine ci njiital sëriñ Moustapha Diatara ak mbooleem waa Touba yëpp sëñ Mbàkke Abdourahmane Euh, sëriñ Mamor Amdi euh, ak sëriñ Cheikhouna Abdou Wudóot sëriñ Abo Kebe mboolem ñoom ñëpp ñëwoon di ay boroom xam-xam def fi ay waxtaan yu am solo démb. Euh, tey ji mooy ñetteelu mooy ñetteelu bis bi tey ñu ngi ko tuddee Cheikh Mouhamad Fadal Cheikh Mouhamad Lamine Lamine Baara mi nga xam ne. jamono bi ñu màkkaan bi bi ñu koy tànn moom la jëwriñ Alaaji Mbàkke yu fay àndaloon mu ñëw bi mu xoolee place bi daal ne fii la Euh, ci moom lañ ko tàmbalee woon mu def fi liggéey bu mag a mag suba incha allah programme yi day continuer waaye suba xam nga ne ci la ñuy def euh, ndaje mu mag mi nga xam ne bu fekkee mën nañ ko wooyee cérémonie noonu lañ ko wooyee doon ndaje mu mag nga xam ne taalibe yëpp danañ fi daje. dignitaire yëpp dana fi daje umma islamique bi yëpp danañ fi daje. bu loolu rombee ginnaaw suba di ajjuma incha allah ci la sëriñ bi ñëw ñu ubbi jumaa ji kon ñu ngi woo mbokki taalibe yëpp di leen woo si euh, yar teggin euh, ak sant suñu borom subhaanahu wa taala ku ne ku ne xam na ne Cheikhul Khadim moom ci sunna rek la nekkoon ak alquranul karim man talabal wusooli li jalaali fal yaxtasim bi sunnati rasuli euh, kon ci loolu lañ fa yéene way ci cant euh, ci xam ne lii day nee na wax naa ko barki dem nee na waa Ndakaaru war nañoo sant bu baax a baax ndax donte lii dañ koo def ngir mboolem jullit ñépp mboolem umma islamique bépp yàlla dafa dogal ci dëkk bii la nekk kon beneen dëkk bu ci mën a am tim kon am na ci wàll loolu kon ñi ngi